ak cantug lamiñ di julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey sëlmal ci mom ginaaw lolu nuy nuy mboolem bokk ñi déglu ak fu mëna nek nuyu nuyub lislaam te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sen bokk Basiru Touré del ci dellusiwaat nañ ak yéen ñu fasiyene waxtaan ak yéen tay xasida guñu wax nuru daarayni fi khidmatil hami hanil harin xasida gogo fasiyene waxtaan ak kon ñu wax ne xasidi gi ñuy waxtaane tey mu deg nooru daari ni dafa bokk ci xasiday sëriñ tubaay xasida mi ngi jóge ci baatub xasada yàqsudu muy jublu na dana jublu su ko defee xasida mooy li nga jubla wax ci luxa moo xam way la wala wesar waaye bu fekkee ne ci arut la mooy lu ëpp juróom bayit wala fukk jëm kaw ci yeneen wax yi ba noppi nag doon lu nu peese ci palaasi arut yi nga xam ne fukk juróom benn la te mooy bu te mooy baxarul tawil ak baxarul madid ak baxarul basit ak baxarul waafir ak baxarul kaamin ak baxarul xusaj ak baxarul rajas ak baxarul raml ak baxarul sarix ak baxarul xafiif ak baxarul mudaarix ak baxarul muttas muttasab ak baxarul muttas ak baxarul mutaxaarib baxarul mutadaarik kon yooyu mooy buxóor yi nga xam ne fukk ak juróom-benn la xasiida nag ay bayit ñooy dajaloo formé wu soog xasiida soog a mën a nekk waaye nag bu ñu waxee xasiida te jublu si ci wax ci xasiida Sëriñ Tuubaa yi dafay am beneen déggin loolu mooy xasiida yi Sëriñ Tuubaa mooy yi mu way wala mu wesar ko jëmale ko ci yàlla di ko tagg di ko sant ak di ci jégglu di ci tuub di ci toroxlu di wane ak xubóor yatoom ci sunu borom tabaaraka wa taala ak yi mu def di séwétal yàlla ak tudd yàlla ak yi mu def ngir jihaad si yoon yàlla ak yi mu def ngir ñaan yàlla waaye mooy yi ma rafet jëmale ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama di ko tagg di julli ci moom di jaayanteeg moom ak leeral sunnaam di ko si xaddiyal waaye di ko si bégal di ko si liggéeyal te mooy xidma ba te mooy yi mu def jëmale ko ci julli ñi di leen ñaanal di leen laabir muy lu ñuy jàng kon xas yi day sëñ waaye mooy dafa nekk lu ñuy jàng di ko jaamoo yàlla di ci sàkko jege yàlla di ci sàkko tuyaaba muy simaye yooyu ma tudd léegi waaye muy loo xam ne day bégloo rasulullahi salallahu alayhi wa sallama di mer fu ñu koy jànge wala koy bindee mu doon lu gaaw ci defar nit ak àggale ko ci suñu borom waaye mu bokk ci kimtaan salallahu alayhi wa sallama yi nga xamee ne dafa mujj ñëw ay muxjisaatul mota ay bokkit ci kaafutée fi suñu borom yi tabaat wa taala comme ni ko Sëriñ Tuubaa waxee xuruuf ahi salallahu taala alayhi wa sallam wa baraka min ayatika wa muxjisatil mutaaxira te moom Sëriñ Tuubaa waxal na ne li mu taalif tàmbalee ko ci ama jay sin mooy at bi mu demee ci géej gi ba ci ama baksa sin mooy ama saxinaa bi karamin li mu taalif taalif mi yëpp mi ngi bokk ci kimtaanu yonent bi sallallahu alayhi wa kon sunu wax xasiida te suñu fa làmboo wax yi wax yëpp xasiida nag ay xaaj la ak ay xeet am na ci xasiida yoo xam ni xasiida yi tudd yàlla la ak sant yàlla ak jihaad yooyu mooy li sëñ Tuubaa bind ci biir géej gi te loolu waxal ba li yaalama kulla man taxalaqa bi annani tawajaxtu ilallahi taxala بتواليف تكون لها نفع المسلمين في الدنيا والآخرة وأن جميع ما كتبته في خيبة البرية في خيبة البهرية آه، آه، وأن جميع ما كتبته في خيبة بهرية خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وذكر وشكر وجهاد لا خير فلذلك منحت من نقلي وسترته نانا na képp ko من ne aju nga ci man na nga xam ne jublu naa yàlla ay taalif yoo xam adina ak alakhira te mbollem li nga xamee bind na ko ci bir géej gi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ak tuddu yàlla ak sante yàlla ak jihad du len lu li loolu motax khasir yoy ma tere ko doxal dal di sutural kon yoy moy khasir yi nga khasir tuddu yàlla la ak sante yàlla ak jihad moo am yenn xasir yoo xam nag xasir day tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xasir day julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme nim ko waxe li ti daaxun bi musija wa amdu rabbi wa sukra rabbim tasaja def naa ay xasiida yoo xam ni jaxase naa ko ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tagg ko nga xam ne xasiiday tagg yooyu boo xoolee yi ne ci diwaanu sanat murin yooyu yëpp xasiiday tagg la boo demee ci diwaanu salawaat xasiida ca nekk yëpp xasiida yi itam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent Sëriñ Tuubaa dafa xaajoon at at mi ñaari xaaj comme ni mu ko waxee salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta juróom benn weer da tagg bi juróom benn weer yi da julli ci bi comme ni mu ko waxalee nga xam ne li ko tàmbalee ci muharram ba ci jumaadal thaniya nga xam ne juróom-benn weer la mu li ko tàmbalee ci tam xarit ba ci maamu koor juróom-benn weer yooyu yëpp da ciy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko waxee madaxtu xayral muharrami ila intisaafil aama saa takarimi la ko muharram di tam xarit ba ci at di xaaj nee na dama fay tàgg gën gi mi def sallallahu alayhi wa ak fi mu ne lakam tidahi li jumaada thaniya min al muharrami imtidaaha xaniya nee na la tàmbalee ci muharram di tam xarit ba ci jumaada thaniya di maamu koor nee na dama ciy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tagg yoo xam ne dafa rafet dafa taaro ba mel ni ab jànq ba mel na mu rabel samtu li jumaada saaniya minal muharrami imtidaaha xaaniya warul naa ci sama bopp ay tagg yoo xam ne nii dafay rafet ba mel ne ab jeeg ba mel ne ab jànq tàmbalee ko ci tamxarit ba jumaada saaniya te maamu koor daal di wax ne li nat bi xat yi li xat kutibat minal muharrami sanaa toxti ratab nee na warul naa ci sama bopp jëmale ko ci yonent bi sallallahu mi nga xam ne mooy sang ba warul naa ko mbind yoo xam ne ci tagg lay doon tàmbalee ko muharram di tam xarit ba ci jumaada mu nga xamee ne mooy maami kor muy ay tagg yoo xam ne joxe ay martaba ak ni mu ko waxee ci yi ñuy waxtaane muy nuur daal ni wax ne xalal la si madaxtu min raxtil urumi li saadisi suuri waxu man karum te loolu mooy damay tagg yent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko tàmbalee ca bopp at ma te muharram ba ci juróom benneelu weer wi waaye it xasiid yi nga xamee ne xasiid ay julli ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam moy tam la ko tàmbalee rajab juróom ben wèr yoy ci dess rajab saxbaan ramadan sawal sol qadis al ijja juróom ben wèr yoy ci la dan tag ci la dan julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yooyu mooy li ñi wax rajab nday kor balaxlu kor koor dig tebeski tëbaski juróom benn weer yooyu ci la dan julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasiida yi ngeen gis rek muy xasiiday julli xamal ne ci juróom ben wèr yoy la te lolu sëñ bi ko waxal bu xamul leer neena lahu salati wa salami min rajab li xatmi sil ijja nihmal muntajab neena sama julli ak sama sëlbal ñel na yonent bi salaam la ko tàmbalee ci rajab ba ci jeexantalu silhijja te moy tabaski mune alayya lil muxtaar khayru salawatin min rajabin lil khadmi duna hafawatin xafawaatin warul na warul bop sax bopp ci bi saha nga xam moy ki ñu tan ay gën gi julli tàmbal rajab nga xamene moy mooy ndey koor ba ci jentalu tabaski wax ne khadil tasamtu salawatun min rajab li khadmi fil hijjati sa'yan yuntakhab warul na sax bop ay julli yoo xam ne nii dafay tàmbalee ci weeru rajab di nday ba ca mujjantale ko tabaski ga muy jëf joo xam ne jëf ñu tànn la ak fi mu waxaate ne xuttu salaatan wa salaamin wa salaaman min rajab li xadmiti li moo leen ajab xam ne kon mànga naa wamat naa ay julli ak ay sama ko ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci rajab ba ca mujjantale li xijja te mooy eh, eh, ndayi koor ba ca mujjantale tabaski kon xasiida gu ngeen gis rek mu bokk ci xasiida julli rek xam leen ne kon ci juróom benn weer yooyu la ko bi def te mooy sëriñ bi xasir yim def yépp li ci julli ci yonte bi salallahu alayhi wa sallama ma nga tàmmalee ci rajab ba ci mujjantaluk silihja mooy ndey koor ba ca mujjantaluk tabaski xasir yi nga gis yépp muy julli ci yonte bi salallahu alayhi wa sallama ci période boobu la lu mel ne jaalibatul manaqib ak mufaatul bi yépp ci jamono jooju la ko sëñ bi way bu lu mel ne mufaatul bi sëñ baa ngi ko way ci ñaari weer yi muy rajab ak saabaan ndax la ko tàmbalee ci baydu mu njëkk ba ca 163e baydu rajab la ko ci rajab la ko waye nga xamne moy salli wa sallim rabbi hani abada xalayhi fil ali wa man ta'abbada min sahbi wa waliya saxir bi kuni kulla asirin wa adni wa makni da tambale ci bopp ba foofu ci weer rajab la ko tàmbalee nga xamne bo gisé ñelma nga rek tur yàlla ci sëñ bindi rek juñu na ci loolu mooy allahuma yaa raufu yaa jamilu yaa baaxi daf lay jox raag roofu roofu ak jimuk jamilu ak baa ak baaxi nga ñëw mu teg ci yaa rahmaanu yaa jawaadu yaa badaawu rahmaan ak jiimu jawaad ak baa uk moom te mu jox la rajab nga ñëwaat ya rahim yaa jaamihu yaa bari moom mu jox la jiimu ko rahim ak raagu ak jiimu jaamih ak baa uk mu jox la rajab la tàmbalee nag euh, ca 163e 164e bayit yi ba xasiida gi di jeex loolu ma ngi ko way ci weeru saabaan nga xam ne 211 bayit la mooy li tàmbalee ci allahumma yaa alim yaa hakim salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin وآلي وصحبي بأجر في وحي يا شكور يا عليم يا بي أكرم يا نافع نحمنا شحبان جن نحمنا شينك شكور عينك عليم أك باك باخي أك ألف أكرم أك نون نافع شان لجي جن خسيري سجبة تك جلسان بسال الله ما يب جي تامر رجب لا بتي شحبان دمنا نجح رك مثال تي مفاصل البصري خسيري جن يوحنا ممتم خسيري جلي لبكو كون جي دين تبابو لكو سنجبة فار خسيري تيم دين خاج نتي خاج mooy li jiitu géej gi ak jamonoy géej gi ak li nga xam ne moo doon ginnaaw géej gi tàmbali ko ci ama naa bi karamin muy 1322 ba ni sëñ bi ñëw ñibbisee tubaa ci ama wamsasin bu dee ci xaaj bu nga xam ne mooy période géej bi comme li ma ci waxoon léegi rek dama waxal boo xam ne képp koo xam ne aju nga ci man na nga xam ne jublu naa ci yàlla ci ay taalif yoo xam ne dana nekk ci biir taalif yooyu njariñal julit ñu góor ñi ak julit ñu jigéen ñi àddina ak alaxira te mboolem li nga xam ne bind naa ko ci jamonoy géej gi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ak tudd yàlla ak sant yàlla ak jihaat sëñ bi tere ñu toxal te susaal ko allahuma yi nga xamee moo joxoon ndigal ñu génne ko ñu wax ne xasiide xasiidaam yi nga xamee ne moom la bind ci géej gi ëmm na maqaamam gaa yu baax yi te it sëñ bi wax tamit ne la jiitu géej gi nag nangu ko bu sëñ Tuubaa nag bokkut ak nangut ak keneen xasanaatul abraar sayyiaatil muxarib nañu wax da nga toll foo xam ne sa gaa yu baax yi seen jëf ju baax mooy ñaawteefi ñi nga xamee ne jege nañ yàlla kon bu sëñ Tuubaa waxee ne xasida yooyu nanguwuñu ko laaj na aw déggin mu wax ne wan wi maa sixta xinda xiraati xasidatin min xasaidi tajid insha allah in kaa baxda xuruj min balo min jolof aw xablahu fi tilka sanati xabdal xuruj wa amma maa xablaha fala nee na yéene la fasal lu la soob booy jàng sama xasi genn xasida sama xasida yi nga xamee ne wax naa ko ginnaaw ba nga xamee ne jóge naa jolof mooy bu muy dem ci géej gi jóge mbàkki baari wala muy wax ci at moom waaye nee na ya jiitu nag moom bul ci fas dara ndax suñu boroom nangu ko ñetteelu xaaj ba mooy la ko tàmbalee ama shahid naa bi karamin ba ci ama wam susin foofu sëñ bi wax na ne képp koo xam ne bëgg nga njariñal àddina ak alaxa na nga farlu li ma bind ci jamono jooja mooy la ko tàmbalee ama shahid naa bi karamin ba ci wam sin nee na bind yooyu kawee na dul ak hadis ci lu dogu te am na barke bu mag bu ci nekk boo xam ne newul ci yeneen taalif yu dul ñoom kon boo xoolee dafa mel ne kon ñu ko xaaj ñetti xaaj yu jiitu géej gi moo tàmbalee xaama assasin 1301 euh, ba ci 1313 boo ko dee xool loolu dana dem ci fukki at ak ñaar ñaareel ba mooy la tàmbalee ci géej ga ba ci xaama saxina ba karim moo tàmbalee xaama jasisin ba ci xaama bak sisin boo ko dee xool fukki at la soo ko boolee ak fukki at ak ñaar yi mu jëm mu jox la ñaar fukki ak ñaar la ko tàmbalee xaama naa ba karim ba ci wam sin moom itam soo ko xoolee ñaar fukki at ak juróom la wala ñaar fukki at ak ñeent kon xasida yi xaaj noonu lañ ko xaye nur daari gi gi nga xamne mom moom waxtane muy xasida gi nga xamne mom moom waxtane te moy nur daari ni mi ngi bok ci xasida yi nga xamne ni xasida yi nga xamne ne Sëriñ Tuubaa ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu feeñ na ca ci tàmbali rek la ci juñu lolu bo xolé bayit ci njëkk ma ngay wax ak wa top ma ngay wax nan alhamdulillahi alladi yusalli ala annabi almuntaqa almusalli salla wa sallama alayhi llahu في الآل والصحب وان والله نينا ميغي جولي ميغي سانت سون بروم تبارك وتعالى موم ميغي خاميني مولي تي يونت بي صلى الله جولي كاب كون يالنا يال دول دي خيوال موسل تسلمل تي يونت بي صلى الله عليه وسلم اك نيام اك صحابام اك كيب كو خاني ميغا اك موم واي لم تك وامر الاملاك ايدن بالصلاة عليه سائدا بساع لك ثم إلينا وجه الكتابة تكرما وأنفسا أتابا يعني سن بروم غينا باغا خاميني جولي نتي يونت بي صلى الله عليه وسلم dafa digal malaika yi ñu julli ci mom ngir dolli ak kayam kàddu gi arñu ta lolu motax mu ne fa khumtu khailan ma sali amra jamiilin jalla mu ne kon motax tax ma jug nak ngir fene ne sun borom bobé nga xamné kawe na walif ñukoy misal kon bu mu jógee rek mu daal tàmbali julli ci yonte bi ci xasiida gi kon xasiida gi xasiida ak ci yonte bi alayhi wasallam comme ni ko waxee feneen amiran bi an nusalli ala nabiyyina muhammadin babil hula ilayka minni busharun muqaddama fi xidmati lati xadimu xadamam yaa digle ñu jube salaasama moo tax ma defar xasidi gii nag mu nekk busharun nekk muqaddama ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax bi sëriñ bi waxee lii ba àgg rek bayit yi ma tudd léegi ku yër xasida nga xam ne lam ci topp rek la ca la ca topp rek mooy daal tàmbale julli ci yonent bi salaasama te loolu mooy bayit yi yallaahu salli abada wa sallima xalaa nabiyika sixlama daal di julli ci yonent bi salaasama boo dee ba biir xasidi ga ما نكفي وحدان يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على محمد صرف الحلا وأن نصلي فأقول لوجهك الكريم ليسكر المخول nga xam ne yaa nu digal ñu julli ci yent bi saaxama te sëlma ci moom kon li may wax fii lépp julli ci yent bi saaxama moom la kon nang ma xantal sama wax ji ak sama jëf ji nga xam ne mooy xasida googu gis nga ma ngay wax ci biiti bi naan wàccaal bi ci xuruufa tiil muqaddama maqbuulatan barakatan muhasaba nee na na nga def bii nga xam ne ab muqaddam la maanaam lu ñu jiital la mu nekk lu ñu nangu nekk barke barke bu mag ak ja ma ngay wax ci biir naan wàccaal xuruufaha bu saaraatin tuniiru xalbal lësi yusal yamniru na nga def xare ci mbégte mbégte xam ne dafay leeral xolub ki nga xamee mi ngi julli nga xam mi ngi jàng xasida ndax xasida gi xasida julli ci bi sallallahu alayhi wa ma ngay wax ci bi naan warfax liman bihaa yusali dikra wajbur lohal xaatira wasrax sadra كيف كو خامني ميغي جولي سي ينت بي ساسما سي خاسيري كي سون بارام نغا ييكاتي اوترام تاي نانغام ييب تا نغا اوبي اك دانام خامني كون بو خولي نيال بينو خاسيد ريك سيني بي اندنا سي مدمومو اك مفهومو اي بي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تلال ما يالا اك اي ملائكه يو جولي سي ينت الله عليه كون يين نيغا خامي ني گم يين يالا جولين تي سلمال سي ينت الله عليه وسلم كون نيال بينو Euh, euh, bay di njëkk rek sëñ bi indi na mafhum ak mantox ah, ah, mat mu aaya booba kon loolu dafay tegtal xasida gi xasida ak julli ci yant bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax gis nga sëñ bi bi mu waxee la baaga tamit la mu njëkk a def rek mooy indiwaat ay bayit yoo xam ni daa am leen lu mu ca feeñalaat muy yallaahu salli abada wa sallima xalaa nabiyika sira siraajal ulama sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fi al alim al alamati rabbina al halim yaaman bihi wa habtali خيره لهم يا حمد فوق اسمه سعد لفيني ما يطري على حمد ما الله كلا إن دال جل جنت بي سلم الجمام جنت بيدو كم نما كواه وعي بوجز بنت بيدو جه لم إن جواب وصل يا رحمن ولتسلم على الذي تقدمه قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في العالم آل وهو الذي ساخ لخير الجبرة نحن فويتم نعم الموتوب أسمى الله سلام الرحمن مملي إن فويتم جل جي سلم الجنت بي سلام جنت بيدو بي يوجي حمد نما إندي ci asmaawul xasna muy rahim mu indi ko moom itam wax ne wa salli yaa rahim wal tusallimi ala nabiyika wal ali wa sahbihi fil haali mu ali nga xam ne rahim googu indi nga xam ne kon ñetti tur yàlla yi nga xam ne ñoo jiitu ci asmaawul xasna muy allahu arrahman ak rahim moom la ubbee xasiida googu waaye ba tey nga gis ne am na benn addis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu wax muy ne képp koo xam ne julli nga ci man man sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi hasanan ba addis ba jeex كيف كو خامنا جولي نغا سي مان بن يون يالا جولي سي فوك يون كو خامنا جولي نغا سي مان فوك كو خامنا جولي نغا سي مان تيمير يون يالا جولي سي جوني يون تي كيف كو خامنا جولي نغا سي مان جوني يون يالا ارامال خيرام ساور غيس نغا مفهوم حديث بوبو اك مات بوم حديث بوبو سيني بي اندي كو سي نيال بينو خاسيت مو تام بام جيخالي لولو واني لولو موي فيمي واخ يامن يخود لمصل المره عليه حسرا قد نيرو بلا موي يوي يالا ياي كيغا خامي كيف كو خامنا جولي نغا سي مام جولي نتي يونتي بي صالح بنين نغا جولي سي مام فوك يون اك مي واخ يامن يوصلو لسي عصر مياه bi jaahi ya man xamaa han sa ya te loolu mooy it yow sun borom kep ko xamne julli nga ci yonte saxam saasam fukki nga julli ci mom temer yon ak fi waxe nihma safihun man alayhi miata alfan miata salla ihtawa alfan tafuq ata moy kep ko xamne julli nga ci temer yon yoon sun borom julli ci yow jun yon ak fi waxe waxu li man alfa salal mu naa ko fii naan yul fa te mooy képp koo xam julli nga ci yonte sallallahu alayhi wa sallam jun yon sun borom sayam sawara dugal la ajana kon gis nga bo xole ñetti baat yi ma waxoon léegi mooy baat yi nga xam ne ñoo njëkk ci asmaa wal husna muy yàlla yaa rahmaanu yaa rahim képp ku jàng xasida gi sëtante ko da nga xam ne sëñ bi noonu mu indee baabu na ko ay yoon yoon ci xasida gi ba di xasida gi jeexee moo xam yoo xam da ko tax boppi bayit aruhu yaa man bi jamihin bi jamilin naafihin xatum yaa gis nga indi na ko foofu bari ak yàlla yaa rahmaanu yaa rahim yaa maliku yaa xudusu xatum yaa loolu bari na ci xasida gi ba di xasida gi jeexee boo xoolee répété na répété na ko 106 fois muy formule boobu yàllaahu yaa rahmaan yaa rahum yaa yàllaahu yaa rahmaanu yaa rahim li mu allahuma nga xam ne kon dafay wane ne loola da ciy ñaan suñu borom fu mu waxee yàllaahu yaa rahmaan yaa rahim rek mel ne maanaam dugg na foofu nga xam ne 97 fois la ko indi comme ni ma ko waxee mu xam yàllaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa man bi jamilin naa xat sumya ak yàllaahu ak bi yenn yoo xam ne dafa mel ne yàllaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa maliku yaa xuduusu yaa loolu indi na ko ci xasida gi 97 fois waaye nag comme ni ma ko waxee woon léegi njëlbéen gi mooy ni mu indiwoon def ñetti beet teg ci wasal yaa rahmaani wa taslima def ñetti beet teg ci wasal yaa rahim wa taslimi loolu sëñ bi rafet na ko 9 fois ci njëlbéenu xasida gi boo boolee 97 yi plus 9 yi moo lay jox 106 yi nga xam ne moo dëppoog allahuma gis nga euh, xasida gi mi ngi nekk junni bayit ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk 1370 bayit moom mu ni loolu bayit yooyu moo ci ne nga xam ne 1270 100 1270 yi mooy ayatul kursi yi mooy juróomi tur yooyu nga xam ne ñoo ne ci biir ñu dolli ci nag téeméer boo xam ne loolu beneen mbir la boo xam ne mënu su ko wax fii ci rajo waaye ci biir xas it sëñ bi sallallahu alayhi wa sëñ bi radiyallahu taala anu julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fois ci biir xasida gi téeméeri julli ak juróom ñeent ak ñaar nga xam ne moo foog muxaddamaatul am daa loolu ci sëñ bi julli ci biir xasiida gi bokk na ci julli goo xam ne matale moo gën a yéeme lépp muy li mu wax ne salli salaatan tajmihul xayraat mux jalatan dara xam ne ci mujj ga la ko wax yow yàlla na nga ci yent bi saasama julli goo xam ne dafay boole mboolem yiw yi julli ko dafay gàccal la ñuy wax dara il xayraat nga xam ne am na jamono moo neewoon li ñu gënoon yëm nekkoon li gën a rey nekkoon li ëpp solo ci julli yent bi salaasama waxtu bi nga xam ne sëñ bi ñëwagutoon comme ni ma waxee ne kon xasida gi mu ngi bokk ci xasida yi nga xamee ne xasida yi julli la vers ci biir ci biir xasida gi 192 fois julli goo xam ne julli gu ci ne gàccal na euh, euh, dara il xayraat waaye julli gu ci ne làmboo na mboolem yi ak mboolem yiw yi xasida gi tamit ñuy waxtaane muy xasida Nuuru Daarayni mi ngi bokk ci xasida yi nga xamee tamit euh, sëñ bi way na ko ginnaaw géej gi nga xam ne kon mu ngi bokk ci xasida yi nga xamee ginnaaw xama saxin ba ci wam sin muy ñaar fukki ak ñeent wala ñaar fukki ak juróom yi nga xam ne ñoom mujj tunduk sëñ bi nga xam ne xasida yooyu sëñ Tuubaa nee na kawe na lépp lu alxaan ak xadis ci lu dangu te am na barke boo xam ni néewul ci yeneen euh, xasida yi te it njariñal àddina ak alaxira xasida yooyu nóor daari ni ci xasida yooyu la bokk sëñ baa ngi ko wayee njaareem fa ñuy wax boqaatu mubaarak te mooy kër gu mag léegi nga xam ne sëñ bi da ko way ñaari at lu njëkk mu ñibbisi Tuubaa nga xam ne kon du sori dam sosin bi gàddaay bi amee junni at ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci at moom nga xam ne du sore 1925 wala 1926 ci la sëñ bi way xasida gi nga xam ne mooy Nuuru Daarayni kon ñu xam ne mi ngi bokk ci xasida yi nga xam ne xasida yu mujj yi la nga xam ne njëriñal euh, àddina alaxira ma ngi ca te it ngi bokk ci xasida yi xam ne loolu alxuraan ak hadiis ñoo la féetoo te am na barke bu mag bu ci nekk boo xam ne néewul ci yeneen yu dul moom sëriñ bi wax nañ ne bi mu ko waayee pare maam Cheikh Anta borom daal Salaam moom la ko jox digal ko ne ko na koy jàng bisu wax nañ ne maam Cheikh wan ko ne ko dafa xaw bari sañ bi tamit téewul ne ko digal nañ la kon nañ koy jàng nga di ko dégg xasida gi tamit wax nañ ne keroog ba nga xamee ne ku ñu wax siiru si jaaxa nga xam ne ci waa daara yi kaamil la newoon la bokkoon newoon ku ràññeeku nga xam ne histoire lu yéeme la Basiru Si moom keroog ba mu génnee àddina wax nañu benn xaaj bi sañ bi ci nur daari xaaj boobu la diggal ñu suulaale ko nga xam ne boo demee ci min nexul miske fil xawaarixil baria Cheikh Mahamadou Ibn Dagana am na lu mu ci junj waaye nag bam Basir moom bam keroog bu mu génnee àdduna sëñ bi jël na aminum loxoom yu bari jox ko ko ñu suwaale ko waaye nag jaa tudd ci téere boobu Basiru Sise jaa ba jaa tudd ne xasida gi xasida ak Nuur Daarayni la wala leneen la waaye moom dafa wax ne rek Basiru Sise moom keroog bu mu génnee àdduna sëñ bi digal na ko ñu suwaale ko ak mbindum loxoom moo xam ne mbindum sëñ Tuubaa la nga xam ne Basiru Sise moom ak génneem àddunaam dafa yéeme lool ndax dafa bokkoon ci yi nga xamee ne ci ndar la jóge woon ñëw fa te ay mbokkam mel na ne nekk gim nekk ci sëñ bi neexu leen mu mënoon alxuraan lool rafet bind mbokk yi pexe mu ne def nañu ko ngir ko faa jëlee ba mujj gi ñu d'accord euh, d'accord ci ne daal dañuy fexe yóbbu ko mu dem karce bu ko defee kon dara mën a tàqale ko sëñ bi ci gàttal rek bas Basiru Sise moom mu demee ba xam ne mënut a ñàkk a dem mu bind ab lettre jox ko sëñ bi bind ca illa rabbi sijunu ahabu ilaya mimma yad'unani ilayhi nga xam ne def ci juñu daal waneen daal maanaam tàqali ko sëñ bi dem ci tubaab bi daal faatu moo ko gën a boo ko sëñ bi yëree lettre ba nangul ko ko wax nañ ci bëccëg googu la dem ca lañ ko fekk ca daari kaamil ba mu defar boobu ba defar jekk tëdd sàngoo lu weex ndeke dem na dañ koo dencee nag si baa digle ne nañ ko dencaale lenn ci ci xasida gi muy xaajub xasida nooru daari ni nga xam ne keroog sëñ bi wax na ne fekk maanaam fekkul ci armeel ya ku ko gën te ku ko gën du ko fekk ci armeel ya ba mag ña di yéem lool lool sëñ bi neen am na leen lu gën a yéema am na am na lu gën a yéeme lool daal neen mooy ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy laaj ci bàmmeel muy munkir ak wanakir ba ñëwee ci basiru si sa moom di ko laaj kuy sa borom nee nañ bas ba dafa jug gëd leen neen yéen da ngeen a xam beneen yàlla bu yàlla ba ngeen may laaj kuy sa borom nee na ñaari malaaka yi ne pëccët daw kon xasida gi benn xaaj bi moom la sëñ bi sudaale woon ak basiru si moomu muy basiru sa jaaxa wax nañu benn xaaj bi ci des it suñu na ci loxoy Serigne Saliou la mujj euh, moom Cheikhul Khadim nga xam ne moom itam yoroon na ko waaye euh, dem na jëmmi jamono Cheikh Abdoul ci boppam moo ko bindalaat xaaj bi nga xamee ne manqué woon na ci nga xam ne kon léeg sëriñ bi. jëlee naa ci ku ñu wax sëriñ Abdoulahi Mbacke mu jëlee ci xalil moom sëriñ Moussa Hafsa mu jëlee ci sëriñ Saliou mu wax ne at mi nga xamee ne sëñ bi bind na Nuuru Daarayni ci yóbbal xéewal ga ak yiwa dafa bari foofa kon ñu xam ne kon xasiida xéewal la waaye ñu gis moom itam mu am euh, benn jagale gu nekk ci moom wala lenn loo xam ne moom la ñu koy ràññee ci xasiida yi ginnaaw géej gi ndax li ëpp ci xasiida yi day doon xasiida yu gàtt doon xasiida ñu tënk waaye nag moom mu am bokk génn ci loola nekk xasiida goo xam ne xasiida gu gudd la comme ni ko waxee léegi nga xam ne mat na 1370 euh, bayit junniy bayit téeméer ak juróom-ñaar kon ku ne xam na ne kon xasiida gu gudd la te néew na ci xasiida yi ginnaaw géej gi ngay gis xasida gu toll noonu sëriñ bi nag moo ko tuddee nuur daari ni fii xidmatil xaami xanil xaari ni xam ne eh, ñenn ci mag yi ne leen lu muy firi ñu ne ko mooy leer leerug àddina leer ñaari kër yi nga xam ne eh, leerug ñaari kër yi ci liggéeyal ki nga xamee ne ci ñaari gàcce laaj ñaari kër yi ñooy yàlla ñu ne ko mooy àddina ak sëriñ bi ne leen jubluwuma ci loolu de ndax àddina jàppiwuma ko kër daal ne li ma jublu mooy leer gi lay xëcc jëmale àjjana ak leer gi lay xëcc torel la sawara ndax ñaari kër yi nee na ñaari kër yi rek këru àjjana ak këru sawara Sëriñ Tuubaa nee na nur daal ni mu mel ci liggéeyam mi ngi mel ne kuy tukki fàtte benn bagage boo xam ne mënu koo ñàkk nee na faaw da ngay dëpp ko wala doo àggale sa yéen nga doy na ko màgga màggaay doy na ko sëkk sëñ bi di ko askanale ci boppam moom xas yi léegi tamit nga xam ne mooy nur daal ni sëñ baa ngi ko wax waaye ci bër rajas kon ñu ñu xamne kon ci baxaru jox la ko sëñ boy muy xasiida go xamne ne gaaw la ci àggale nit ki ci yàlla jox ko timit gaaw ci jox nit ki xewal te gaaw ci leral xol nit ki nga xamne ne bi sallallahu alayhi wasallam nee na am ci jëm amna ci ci yaramu nit ki ben lu bo xamne bu yéwéne lépp yéwéne waye bu yàqoo lépp yàqu dal ne lolu moy xol xasiida gi nek dafa gaaw ci leral xol dafa gaaw ci defar xol comme ni ko sëñ bi waxee ci bir xasiida gi wajhal hurufaha busarat bu xalbal lasi bihaa yu salli yaa muniru yow suñu borom na nga def arifi xasida gii mu nekk ay mbégte yoo xam ne dafay leeral xolub ki nga xamee ne mi ngi julli mi ngi jullee julli ci xasida gi maam mi ngi jàng xasida di julli julli ci nekk yow yàlla mi nga xamee ne yaa aji leeral ji dellu wax ne warfax liman biha yusalli dikra wajbur lohal xaatira wasrax sadra yow suñu borom maa ngi la ñaan képp koo xam ne mi ngi jàng sama xasida gi di noonu daal ne di julli ci julli yi nga xam ne moom laa def ci biir nee na na nga yëkkati aw turam tayit na ko musal ci bépp jafe-jafe te it ko ubbil dënnam kon xasida gi dafay defar nit si lu gaaw jox ko xol bu leer jox ko aw tur ko ci asamaan ak suuf yëkkati ko àddina ak alaxira jox ko xel mu dal ak dënn gu xubbeeku ni muy xubbee ni muy xubbee dënnu nit ki noonu lay ubbee bunti yiwam ak bunti xewalam yëpp te it koy jàng moom itam noonu lay ràññeekoo ko noonu lay fësee ci basaax nga xam ne am na génn kilifa goo xam ne xam naa turam xamul santam mas naa gént génn kilifa goo xam ne mooy itam dafa génn àddina ne ci bas nee na ci biir gént gi mu laaj ko ne ko ndax gis nga sëriñ Touba mu ne ko waaw waaw daal di ko samaam de moo ma gàttanu moo ma teral ba ba àgg wax ak moom ba àgg ci biir ne ko nag fii di barsaaxa koo fi gis rek mu yor cër bu ñu ñee yor cër boo xam ne ñëpp ko bëgg xamal ne daraan jàng nooru daari ni loolu kilifa gi fa gént xam naa turam xamu santam tayit lu wér la loolu sax danañ ñëw inshallah ci bu ñuy wax jagalay xasida gi ak ngeenelam ak njariñ njariñam inshallah ci émission yi di ñëw nga xamne fasiyé fas yéene nañu waxtaan tamit ci mustahsanat sihriyal badihiya yi nga xamne mo moo nekk ci xasida gi nga xamne lu melne ne amna ci lu soo malaayal sam ak li ñuy wax ixtibaas ak istihara yëpp sëñ bi da ci indi lu bari bari ci bir xasida gi moom itam dañu ko leral ci émission yi di ñëw comme ni ñuy leralé njariñ yi ak jagal yi nga xamne ño ñoo nekk ci xasida gi ak li composé xasida gi inshallah allah moom itam ko waxtaane ak xarale yi nga xam ne nag sëriñ bi moo ko ci def nga xam ne si mindum sëñ bi rek nga koy fekk doo ko fekk ci beneen mind ak li ñuy wax al ihjaasu raqmi te loolu moom itam mu feeñ tey feeñ lu bari bari ci mbindum xasidi ak yeneen yu dul yii danañ ko waxtaani incha allah ci émission yii di ñëw ci xasidi gi boo xoolee sëñ bi nuru daari ni fi xidmatil xaami xañal xaari ni boo ko xoolee ab junj bu rëy da cee nekk tey daanaka li sëñ bi tudd ci lu bari bari ci biir xasidi gi boo xoolee turu xasidi rek indi na loolu ndax kenn ku ne xam na ne aw tur yu bari bari da ciy feeñ am na noo koy compté mu nekk juróomi juróomi baat boo ne nooru daare ni fii xidmatil xaami xanil xaari ni juróomi baat lay doon loolu dafay symboliser juróomi waxtu yi nga xamee ne ñoo nekk ci bis bi te ya rabbanaa ya rabbanaa yi nga xam ne sëñ baaba na ko juróomi yoon feeññe ci biir xasida gi loolu danañ ci agsi incha allah boo ko xoolee neen dafay dafa lay jox juróom-ñaari baat mooy nga ne nooru ne daare ni ne fii xidmati alxaami xanin xarini su ko defee loolu tamit daf lay jox moom itam sept jours yi nga xam ne ñoo nekk ci semaine bi waaye boo xoolee nuuru daarini fii xidmatil xaami xañil xarini soo arrêté lettres yi ci nekk yëpp 31 araf la nga xam ne boo ci dendee 31 moo ci des 1 boobu nga xam ne daf ci junj wax daani yi suñu borom mooy l'unicité divine 31 30 yi ci des moo la jox fanweer fan yi nga xam ne mooy weer waaye boo xoolee tamit gis nga araf yi nga xamee répété wuñ ko ci xasir gi fukki araf la ak ñett mooy itam boo génnee boo ci génnee ñeent fastu yi nga xamee ne ñoo am ci at mi muy sayfu sita xarif ba mu jeex benn ci def moom itam di symboliser moom itam wax daani fi laa yi nga xamee ne mooy symboliser l'unicité de Dieu moo tax sëñ bi tudd na lu bari si xasir gi bis yi ak weer yi ak fasool yi ak at yi comme ni nga ko waxee waxab lahu suhura wal ayaama بشرا له والتقه الأيامة أكمل هاي ووجه الفصول والسنين لبشره ورده الفنون تلولو دنا غنا إن شاء الله تي خار لك نيها من ثين بيحنا كتي بي خسري بودي جلوم نعرف أني كم نمكو حي ولا أدمي كم نمكو حي لك السكوري ربي من معرمي لخدمة الحجة خدمة الحرمة نعم ديوان أكتن تام نيال نسون برام لكو تام بلي محرم بتي مجن تلو تبسي نعم نفوت فك وياري أكنياري مدي أدمي جوني نكفا بودي جبسي كم نمكو حي لك السكوري على الأيامي yaatal muxaalafa wal xiyaama nee na sama cant ñeel na yonent bi saa sama ci bisu juróom-ñaar yi nga xamee ne ko xamee bi yàlla mi nga xamee ne ki nga xamee ne taxaw ci xam te moo te dafa wuteeg lépp ak ni ko waxee lakka sukuur ala kulli sana yaa man taxala xan manaamin wasana nga xam ne kon xasiidi gi xasiidi gu yéeme la waaye tamit xasiidi tamit muy xasiidi goo xam sëñ bi da cee boole julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak sant suñu borom tabaaraka taala ndax sëñ bi leeg mu def loolu gis nga boo demee ci Matlabul Fawzayni sëñ bi ñaan la ca boole ak sant sun borom waaye fii tamit sëñ bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sun sant sun borom moom la composé xasida gi moom la boole ci biir xasida gi comme ni ko waxale moom ne wa waxabtali ci biir xasida gi waxabtali min fadlika al azim ma xaadani li shukri bin nasim nga xam ne kon xasida mu ngi ko tuddee ak zukru bin nasim ne ay way yoo xam ne dañu ko way ngir sant sun borom taala ak fi mu waxee ci biir feneen ne li yesaat bi sukri laka fil fadl rajab wa fii siwaahu wa fii siwaahu yaa mudiban lil xajab ak feneen foo xam ne sax gën naa leeral loolu wax ne salli salaatan bi sukuuri tasxadu maxa salaamin bi xinaa i yasadu yàlla na nga julli ci yonent bi sa julli goo xam ne dafay seede samak cant yàlla samak samak sant sun borom tabaraka taala man sëriñ Tuubaa ak fi mu waxee ne salli salaatan bi salaamin tasmahu biha sukuuri wal munaari tajmahu yàlla na nga julli te sëlmal ci ci yonent bi sa julli goo xam ne da nga ciy dégg samak sant te da nga dajale mbooleem xéewal yi jox ma ko boo xoolee xasiid ak euh, ni ma ko waxee léegi euh, xasiid ak matlal fa sëñ sëñ bi ni muy wax njal mi nga maqasil xasi adduhaaw wa sukkurul jalibat li saydi kon euh, ñaan ak sant suñu borom sant gi nga xam ne mooy waral ak ndolent moom la ca boole boo demee ci xasiid ak mafaatul bisri sëñ bi moom itam julli ci yonent bi ak secret alhamdulilah moom la ca def waaye nag boo ñëwee ci xasir gi nga xam ne moo mooy nuur dari ni sëñ bi nag moom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sant gi nga xamee ne mooy waral dolent nga xam ne mooy safaanul kufru moom itam ñaar la boole ci biir xasir gi moom xasir gi tamit sëñ baa ngi ci biir ñaari weer yi muy rajab ak saxbaan muy nuur dari nga xam ne ci rajab ak saxbaanu damsasin euh, calawaay xasida yi te loolu incha allah dana ñëw danañ ko démontrer ci bu ñu àggee ci bunt bi nga xam ne ci lañuy wax ci xarala yi nga xam ne sëñ bi def na ko ci biir xasida gi te muy xarala yoo xam ne moom rek moo ko jagoo ñu wax ne xasida gi tamit sëñ bi tuddee na ko ay tur yu bare bare te lépp ci biir xasida gi la te wax nañ ne bari bari aw tur bari tur dafay tarit teg dafay tegtale teddug loola képp ko xam lépp loo bari tur rek dafay tegtale teddug loola sëñ bi nag bu ñu xoolee ci xasida gi tudde na xasida gi lu mat fukki tur ak ñett yi nga xame ne moo tolloog uh, axat di lettres yi nga xam ne répété wuñ ko ci arafi xasida gi muy nuuru daarayni fi xidmatil xaami fi xidmatil xaami xañil xaarini araf yi ko composé yi nga xam ne répété wuñ ko fukk ak ñett kon fukku tur yoy ak ñett mom la sëñ bi tudd ci biir xasida gi tuddé ko xasida gi ba ci njëkk bu soro muqaddama comme ni ko waxé ci njëlmi ge ilayka minni bu soro muqaddama fi xidmatil lati al khadim khadama wayé na ko tamit yeneen barab muqaddama comme fi mu waxee waccaal bihi xurufatil muqaddama maqbula barakatal muasama comme li ma wax léegi rek sëñ baa ngi wax naan ci biir xasida gi ne xasida gi na nga ko def mu nekk muqaddama waaye nekk lu ñu nangu nekk lu loo xam ne barke bu mag ci am mi wax fi ne naan bi jaahi muqaddamaat ladayka sarmadan muhatamaat nga xam lépp dafay wax nekkoon xasida xasida gi ci biir mu ngi koy tuddee foofu muqaddama waaye leeg mu tuddee ko ci biir li ñuy wax asalawaatu naamiya comme ni mu waxee ne yaa man jaxante salawaati naamiya xani musa musaafata suluki tawe nga xam ne xasiida gi foofu salawaatu naamiya la ko tudde ak feneen fu mu waxee naan is salawaati jaxante taawiya xanil masira di rëdd ak aawiya te salawaati ko foofu la mu jublu mooy xasiida gi ndax def nga sama def nga xasiida gi mu lemal ma yoon wi te it mu ëmb te làq sa ngërëm waaye léeg-léeg nga gis sëñ bi ci biir xasiida gi mu tuddee xasiida gi li ñuy wax am daax comme ni mu waxee wala am daax yi jaxante ka jihaadi kulla mujahidin xadee sàcci haadi ak mi waxee waccal madaihi lahu wasalawaat fawqal ibadaati maxan wa daxawaat waaye léeg-léeg it mu tuddee ko kitaabatiya comme mooy li ma wax léegi nga xam ne daf koy askana ci ba xam wax sama téere bi comme ni mu waxee ci biir naan waccal kitaabatiya min sal yow mi fawqa salaasin xubilaat wa saw mi bis ni ko tey na nga def sama téere bii mu kawe julli gu nangu ak wor gu nangu ak mi waxee naan waxan ni ij sa ahla badrin sarmada xayran kasiran wa kitaabati ahmada da nga fay waa ahla badrin ci man waye sama téré bi nang ko sante waccal kitabati bu saaraatin tëddoom lil muntakhal lati si sirtul khadim nga xam ne dafa dafay ci biir mi ngi tuddee téere bi ñu wax kitaabati na nga def sama téere bi muy ay mbégte mu sax ñeel yonte bi saa mi nga xam ne mujj naa nekk ab liggéey waa konam ak mi waxee naan waccal kitaabati da day ka baaxayaatin wa saalihaat laa naamiya sama xasidi gi di nooru daarin na nga ko def mu bokk ci baaxayaatu saalihaat ak mi waxee naan ubi kitaabati laxoo xutmaa yi si masaratan la day ka yaa baax yi masit ak fi mu waxee naan waccaal kitaabati ilayka xaayida waccaal xayaati nabi fayda na nga def sama xasida gi Nuur Daarayni muy lu yomat ni ñu jëmaleen ci yow waaye na nga def sama dund mu nekk njëriñ ñeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waccaal kitaabati ka kulli mursal yaa man waxabtali ujus def sama xasida gi Nuur Daarayni mu mel ne mbooleem yonent yi tey nag ma may yow mi nga xamee ni yaa ma may yoolu yonent yi wax ne war faxaloo bi ci kitaabati bi laa radin waxumudi bi taxawaala gis nga foofu itam sëñ bi xasida kitaabati ko tuddee ak li mu wax ne lil jinaani muusiratan muniratan jinaani yow sun borom nga def sama xasida gi muy àggale nit nit ki ci àjjana tey di leeral sama xol ak li mu waxee waccaal kitaabati ya fa waxoon naf li lil xayri kullu xam nga def sama téere bii mu kawe naaf mboolem naafale yu baax yëpp tey di ubbi mboolem buntu xéewal yi nga xamee ne dañ ko tëjoon gis nga tamit noonu ko tamit tuddee kitaabat yi léeg-léeg it mu tuddee ko alxabt comme ni mu waxee ci biir waksif bi xatti maxtafa min al ulumi anta al xabiru wal kabiru wal alim léeg-léeg it mu tuddee ko li ñuy wax xidma wala xidmati léeg-léeg mu tuddee ko an nasma aw saihi nisaam aw nasim aw saihi nisaam léegi-léegi it mu tuddee ko jinaas comme ni mu ko waxee xal si yasurruhu jinaasi musaani kulli an xanaas léeg-léeg mu tuddee ko al axraad comme ni wax ci biir waxalaa bi wajxal bihi axraari da axraad yi yaa jaaxil fi axraad yi léeg-léeg mu tuddee ko as saay comme ni mu ci biir ne warfax bi sahi yi bi sukrin raaxiya yaa raafaan lay sa isaalu baaxiya léeg-léeg mu tuddee ko al lusum comme ni mu wax ci biir xal si yasurruhu lusumi ay sil biraaxi waxib sin ay sum mu tuddee ko al misaan comme ni mu ko waxee xalal la yasurruhu misaani fi kulli saaxatin bila a'thani nga xamne kon sëñ bi wutal na khasside gi fukki tour ak ñet yo xamne yépp mi ngi ci biir khasside gi te bari bari ak tur dafay tektale màggaayu loola te it bo xolé fukki ak ñet yi mo dëpp ak tur yàlla yu ñuy wax al ahad te tour yàlla wit it ci biir khasside gi lool dana ñëw inshallah ci émission yi di ñëw te it fukk ak ñet yoy bo xolé nur darini fi khidmatil aami hanil harini bo xolé xoolee araf yi nga xamne mom itam bamtuñ ko fukk la ak ñett kon dafa mel ni foofu it am na relation wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu hamdan li rabbi xayri murabbi xadra maqalbi bil iqtidaai law sukoori bila kufuuri wa wa nasiri minu fidaai